waaw yàlla def na bu ñu wàññee ba léegi ñu ngi appliqué ñun waaye amul suivi ci wàllu état jàpp nañ amul amul suivi parce que depuis boobu bu ñu wàññee ba léegi dégguñu dara gisuñu dara surface corrigée bu ñu doon wax tamit jaarul yoon parce que tey ñetti néeg ak saal ñu ngi koy loué 100000 boo defee surface corrigée di lay jox 120000 130 euh, kon jàpp naa loolu euh, virus la woon jàll na mais liñ ko waroon defar defaruñ ko wax dëgg yàlla. ci suuf a dëgg yàlla ñaari commune am nañ problème bu rëy rëy rëy rëy mais ñaari commune nañu ne problème yi baritul benn commune boo xam ne amul problème signature am musul ñëw ci man mooy Maguette seen Maguette seen xool nañu Malicounda amul benn problème bu mu toogee ba léegi signature bu ñëwul Mbour tamit amul problème waaye ñaari commune moom nañ jàpp am na problème yu rëy mooy gi Gandigal ñaari commune yooyu am nañu problème bu rëy rëy rëy rëy te war nañ ci bàyyi xel Sinja jéem ci Gandigal gi ak euh, Malick euh, Ngexoox commune yooyu am nañu problème parce que léegi-léegi ñi ñun dañoo am confiance ñun depuis Europe ñu yónnee seen xaalis pour ñu jëndal leen terrain mais da ngay daw daw ba sonn jënd terrain ba pare fekk mu am litis maa nga commencé vérifier nga gis ñaari tour loolu mu ngi am foofu ba léegi état Sénégal bu ci noon bàyyil xel dina ci baax loolu man am naa lu ëpp ñaari teere maa ngi sant yàlla mbuur am naa fi benn kër lu mu tuuti tuuti bu ñu jëlee suma kër maa seen mun naa desee benn mais li ma li gën a métti mooy nit ki dajale ay 1 million 1 million 500 mbokkam dajale ko fekk ci location la ne woon ñuy dem jëndal ko teere maa mu dem jënd teere dem banque leb war a dem dugal foo dara mu ñëw sotti suuf ñu ne ko teere bi moomul yëg ak wàcc dem tribunal ñaari nit ñett nit indi original comme moom loolu war nañ ko seetaan te ñaareel ku nekk Europe ak ki nekk Amérique ñaareel ñoo yénne seen xaalis jënd jënd ba pare kenn ku ne miite bu demee bu contacté ñëw kii def signature bi doo ko gis ñaari jënd rek ñoom ñooy am problème ñoom nag defuñu dara pour man kii def dara mooy ñi signé papier yi maanaam euh, mairie ak i problème bi foofu la war a jógee ngeen ma nag ci wax bi foofu war nañ ko seetaat lu wér wér parce que am nañ ci problème problème lu wér la nag. waaw duñuy laasee ñu ñuy jàppale ñu parce que li wax léegi mooy nit ku amul doole dajale dajale bu am 1 million dem jënd teere toogaat si xet juróomi at juróom benn dem bank bugg a leb tabax nga ñëw ne teere bi baaxul loolu presque ak rey nit la loolu ak rey nit presque benn la dara gënu koo métti léegi ñu ñaan état Sénégal bàyyil ci xelam ci commune yooyu am na problème bu rëy tak loolu la ñu mun a wax.